ama soxla Mady Mbacke bii waaw jërëjëf dama soxla maire bii nekk fii ci commune bi dañoo fa ne daa mën a suruxo ci kàmb mais mënuñu ko de soo amee programme ñoom ñëpp dañuy jóg ne dinaa la jàppale mais ma dama am entreprise di liggéey même du sax si kenn du la mbay di signé ay contrat di liggéey xaaruma kenn ndax loo programme ci commune bi fii ñu ñëw su roxlu ci biir wax seen wax doo ko dem maa ko wax moo tax gisoo leen fi tàmbal tàmbali mbàkk yëpp samuñu jariñ bu leen falee yor seen i ndox may tànk duñu xalaat ña leen faral bu leen soxlaa rek élection ñu wàcc si fa su ñëwee campagne ëppal xaalis ni ñu génn Macky Sall war nañu mbooloo amuñu mbooloo de ndax yéen ñuy toog ndax ba woo naa leen jox leen kenn ko ne 1000 francs pour café ndax téléphoné naa ci kenn ci yéen nii ñaari fan laa ko yëg takk na oto oto laa jël gas ci rajo ne leen mouvement ñoo nangu bii nag li tax ma taxawal ko mooy programme président Macky Sall bu fi dem programme bu ñëpp o seen o du programme boo xam ne dañ koy bind ci rek watu ko budget doo ko gis parce que boo xoolee tey Sénégal lu fi président dolli bu fi toogee ba léegi ci benn mandat am président fi jaar yëpp def nañ fi ay mandat yi mandat yi mandat defuñu ko fi boo ko dëgg rek buñ soxla wax nga waaye béykat yi ak ak ak ak ñi xam ne ñoo néew doole sama mbokk yi ci àll bi ñetti weer wu nekk ñu jox leen kenn ba nekk loo dundee ordonnance yi gratuitement la léegi ci xale yi mag ñi ko am 60 ans doo fay mën na ko président ak Abdoulaye tàmbalee mu ñëw dagg ko mais dafa gën a yokk beneen programme bi. lu tax ñuy nangu mooy Touba ak Dakar suñu xalifa général kulli mu su jógatee di dem kenn dootu ko téye si yoon day def bu ko neexee def heure bu ko neexee dégg loolu rek war naa tax ñu laa Touba bi sëñ mu taxaa saa fay jaar dañ naan ubbi leen mu jàll dëpp mu dëppaat toujours ñu waa Dakar dañ koy xaar pour mu ñëw xalifa mu sànni ñëw Dakar dañu taxaw ndax xaar ba suñu tànk nit kon Ila Touba bi ñu Macky Sall defar rek fay jaar rek war naa tax ñu nangu beneen bi mooy sàncaani yi ma dëkk nag dañoo jàpp ne ñoo fi gën a ndóol parce que politiciens yi fii lañ daan ñëw di roj ay nit di yóbbu ñu leen di wooteel di xumbal seen i bis président Macky Sall ñoo ne dañ leen a ndax rek kaa ma dimbali leen. luy ndimbal li mu ne jox leen courant jox leen ndox def na ko lamp yi xool leen ni muy tàkkee dem leen ci marché bi ngeen wër ko dëkk bi yëpp. dafa leer nañ lu tolloog presque 15 kilomètres yoo xam ne lépp emploi te grâce ak président nangu na sama nangoo nu leen bu lu bul bañee làmbaay nangu doon laa nangole nangu kenn mënu maa nangu li tax ma nangu dama teg sama bët ñi bañ na nga tax ñu bañ ñoo ko xam yàlla na yàlla dëpp bañ ma la nangu président Macky Sall li koy ñaan di mandat bii yàlla na ko àggale ci jàmm ak salaam di ñaan tam ñi bañ ñu delloo seen xel bu baax xalaataat waxtaan ak seen njëgënaay yi te xam ne Sénégal benn bopp kenn mënu ko xar ñaar coolis bari na aju bu ñu jot ñu yóoxu fii xeex fii bëri ay garaat bu ñëpp ñoo bokk ndey bàyyi nañu wàññi suñu suñu suñu xadaat ci côté boobu li am am na ba pare nañ ne na des tekk rek bàyyi ko su xelam dëppee su nekkat yéen ñu nangu yéen ñu nangu d'accord naa yéen ñi bañ waxtaan ak yéen ma gën a xool ma leen mën a jàppalee ah ba ñëpp mën a ànd naw ni suñu Aliou Diouf la am bay def alhamdulilah kon loolu laay sant Sénégal yi kon loolu moo nekkoon woote bii di remercier aussi itam délégation yii nga xam ne nii Serigne Dame moo leen yebal ñu ay borom personnalité di ay nit di ay kilifa duñu am am yar am teggin maa ngi leen sant bu baax moo daan maa ngi sant bu baax benn bokk yaakaar yaa ngi ko jiital fii lépp luñ fiy def sa loxo la nekk jël ko nuyoo tasaareel moo ko ci ñëpp moom di kase maa ngi lay nuyu dina sant di la ñaanal yàlla dimbali la su suturaal la yokk la muccal la ba li nga xam ne nii moom nga ànd ak président di ko liggéey mu wóolu dénk la ko mi si kàpp yàlla suñu borom dimbali la ba nga mën ko àggale ci jàmm.